ناديته بها ولي نبى لغير الله قبل في الذي بأهل بدر الأسود كالدري نبى لغير الله في الذكاء waaw waajtaay bi dañuy sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne ñi ngi sant bu baax ci li ñu suñu borom mayaat ñu teew fii tey bay def assemblée générale bi nga xam ne moo mujj ci balaa yëf yi balaa bisu bisu julli géej gi euh, bu assemblée général bu weesoo bis bu jot quartier général lay doon maanaam maanaam ñoo lay doon sur le terrain amul heure ñëppay ñëw bis bu jot ndax liggéey bi taxaw na am na ci koo xam ne sax su ma baaba kër mbay moom fii la daan dëkk muy taw muy ngelaw muy neige muy lépp moom mu ngi tëdd donc yëf yi ñëw na te am nañ yaakaar bu baax ne dina tegu ci yoon ndax ñëpp a ngi fii te alhamdulilah. gis nañ plan de bi génn na waaye apparemment prolongement bi ren bi posé problème. waaw loolu moo doon tiitaange ñëpp nag waaye yàlla def na jàmm. prolongement bi eh, wax dëgg yàlla deful problème parce que Ageroute mi ngi am ak ñun. mi ngi nekk ak ñun bis bu jot. te wax dëgg yàlla la ñu waxoon ñu ngi koy def commandant bi sax wax na kii def plan de circulation bi nee na tey ren la xalaat ne ren mooy gën a jàppandi sax ci yeneen at yi donc li ñu doon tiit gis nga suñu borom moom dalay defal toujours loo kawee lu kawee sa jot waaw. rek jëm ci thème bi njëriñal murit ci wàllum koom-koom ak yokkute ak loolu nag damay sant bu baax sant yàlla bu baax di sant sama euh, ki topp ci man di sama vice président xam ne moo yore comité scientifique bi. moo joxe xalaatu euh, euh, euh, xalaat bi thème bi te muy thème boo xam ne dafa ànd ak jamono ndax ñëpp gis nañ ne léeg-léeg li ñuy wax ci ñun di kii fii et cetera donc foog ñu wane njëriñal sëñ bu mag bi ci ñëpp te sëñ bu mag bi dafa ne jamaa alwara dafa ñëw pour sommer maanaam ràmmu àdduna moom amul kii yéeféer la kii catholique déedéet ñëpp waaw ah, loolu mooy liggéeyam te non violence tamit maanaam ni ñu koy waxee jaadul nafs moom day ñëw pour ràmmu ñëpp te kurus bi la yor te ñun itam ci loolu la ñuy roy ku ñu tooñ ñu baal la boo ñu tooñ duñu ñu fexe ba bañ waaw jërëjëf Kawa علمني العليم عند الزاخرات مما يسعى وكفاني الكافرات لم ينهني عند البؤر المخرقات داع بخمر أو دواء فاسخات يسأل